KMTV une chaîne YouTube bu leen indil ay xibaar yu wërté lèr ci politique économie santé éducation religion sport ak yenen événement képp ki nga xamné ya yaa bayé ko Kër Mousse moo xam nga nek ci biir wala ci biti di nga mëna sétane séni seeni événement wala match navétane yu gëna neex ci biir KMTV KMTV ñëriñu wa Kër Mousse. voilà Lamine Bodian ma ñëw euh, wax ak yan ci population Lando bi ci euh, journée bu tey bi bi nga xamante ne le président Diomaye moo ko woote avec le gouvernement de Ousmane Sonko ci tuuru PASTEF donc comme niñ ko xamee euh, chaque premier week-end du mois président day woote set setal ñun PASTEFu Lando ñu woote aussi au nom de notre coordinateur muy Moustapha Diouf ñu woote pour ñëpp ñëw waa Lando yëpp génn. ñoo jàppale ñu ci suñu école bi te ñëpp xam nañu ni école bi daanaka que bunti ubbeeku nañu Euh, ñu jàpp ci nettoyer école bi béy ko te bu ñu xoolee ren ji ak nawet bi euh, nu mu amee doole daanaka gàncax bi ñax bi moom am na fi doole trop trop trop te li fi ne ci mbooloo dèjà mooy wane ni ñëpp war nañu génn si ñëw jàppale ñu ci liggéey boobu képp kuy wootee nii moom par exemple nag doomu landu la surtout euh, buñ sañoon nga ñëw jàppale ñu ci journée bi bi nga xamante ne journée set setal la dédiée à l'école de landu pour que xale yi suba bu ñu ñëwee fii fekk fii loo xam ne lu lu lu lu rafet li nga xamante ne dina jouer ci seen esprit ba ñoom it ëllëg bu ñu leen di bàyyi fii tamit ñu continuer ci suñuy tàkk parce que lii moom daanaan ko dafari loo xam ne euh, lu baax ci éducation de base la euh, bu ñu ko xa euh, xasee inculqué ci esprit xale yi rek dina nekk loo xam ne suba njëriñu landu la moo tax ñu leen di woo yéen ñëpp ko no set setal bi warul yem ci benn fan rek du moment u gis ngeen li fi ne déjà ci air bi donc lii il faut mu nekk loo xam une semaine semaine lañ koy lancé donc président moom lancé na pour une journée mais ñun semaine lañ koy lancé ñaan nañu bépp euh, nit bi nga xamante ne bu yenn bu yeewoo landu nga ñëw jàppale ñu ci biir semaine bi ci liggéey école bi école bi dañu la ñëpp ñëw ñu jàpp ci pendant une semaine tey samedi bi ba samedi buy ñëw ñu xool nuñ ciy taxawee ba école bi set bu xale di ñëw ñu mun a nekk dans de bonnes conditions parce que ñax moom xam nañu en général euh, lépp li nga xamante ne luy raam ci biir ñax lay nekk quoi donc pour éviter suba muy indi ay jiyee yoo xam ne dinañu ñu indil ay problème suba te xamuñu ci doomu kan lay lay dal donc ñaan nañu ñëpp ñu génn si ñëw jàppale ñu ci loolu ndax liggéey bi gën a dem kanam gis ngeen ñoom élage ñu fi nekk ak coordinateur ñoom ñëpp ñu ngi nii donc mu nekk liggéey boo xam ne bu rafet torop buñ sañoon ñëpp bàyyi li ñuy def euh, ñu ñëw jàpp ci parce que kenn ku ne am nga ay préoccupation mais lii sacrifice rek la don de soi la mooy Pastef bi nga xamante ne moom la Diomaye di woote ak Ousmane Sonko

bépp nit bi nga xamante ne bépp doomu landu ak foo munta nekk bu noo yaa ngi fii ci biir village bi di yeewoo fii développement de base bi fii lañ ko soxalee dèjà fii lañ ñaan ñëpp ñëw ñu jàppale ñu ci aajool nga nekk Pastef fo nga nekk ci beneen parti na ñëpp génn si ñëw jàppale ñu ci semaine bi bi nga xamante ne semaine de nettoyage la au sein de l'école moom la ñuy ñaan ñëpp ñëw jàppale ñu si ndax affaire bi mun a am succès bi nga xamante ne ëllëg suñ doom yi doom yi su suñ doom yi moom boo xoolee amul benn euh, coloration de parti xale yi bu ñuy àndu ñoom ñëpp doo ci xam kan mooy doomu Pastef ak kan moo ci nekkul doomu Pastef donc ñaan nañu ñu ñëw wane loolu ci biir terrain bi ci biir école bi à moins que suba xale yi bu ñuy jàng si ñu jàng dans de bonnes conditions defoon nañ ko euh, avant fermeture fermeture de l'école nettoyé nañ fii euh, euh, defon nañ ci liggéey bu rafet wax dëgg fa yalla be directeur bi ci boppam mu remercier mu remercier euh, Pastef mais cette fois ci ñaan nañu yalla ñepp genn ci aussi mu baña nek lo loo waxu parti waxu Pastef mais mu nek waxu gëm-gëm bi nga xamantene ñun ñepp bëgg nañu au moins landu mu nek ci euh, yoon bi nga xamantene ñepp buñ fi romb ñu xamni village bi aussi c'est un village exemplaire comme nous avons koy faral di waxee rek le plus souvent le li nga lui luy base de fond de développement ci réew mi ci landu chemin de fer mi ngi fii aéroport a ngi fii ak mi donc il faut landu aussi mu ande ci développement bobu, au moins que souvent, à moins que souvent par exemple autorité yi aux alentours directeur société yi nekk aux alentours au moins ñu mun ñoo jàppale ci loolu te foog naa ni du yem fii dinañu ànd ak ñoom dem solliciter leen pour que affaire bi au moins landu gis boppam aussi ci développement gox bi surtout de la zone sud de de l'aéroport voilà dernier mot bi d'abord, abord euh, may may saluer ji jaajëfal ñi nga xamante ils sont toujours au rendez-vous des événements mooy ñi nekk nii sama ginnaaw d' abord euh, ñooñu saa su ne bu ñu wootee bi mooy deuxième édition bi te gis nañu ni tout le temps ils sont au rendez-vous parce que yombul nga convoqué à huit heures ou bien neuf heures ñu répondre la mais ñii ñoom gis nañu ni c' la crème ils sont tout le temps au rendez-vous ma leen di remercier ñenn ñi nga xamante au moins ils étaient pas au courant di de dooleel aussi di leen ñaax ne leen comme dëgg ngeen information bi à travers équipe bi nekk ci ginnaaw yëpp bon de ma ci man ma rek pour jotali bi donc ngeen daw si ñëw jàppale ci liggéey ndax école bi jëm kanam base de développement base d'éducation KMTV YouTube politique économie santé éducation religion sport ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navetaan yu gën a meex ci biir KMTV KMTV njëriñu waa Kër Mousse